yaa ngeen jëf mbokk yi xarit ñu seetaan à travers Equivox TV tey nag ñu ngi fii nii ci Parcelles Assainies unité 7 ci kër euh, du Ndiaye ki nga xam ne nag dafa daal di ñàkk bakkanam ci lakk-lakk bi nga xam ne am na fii nii dimanche passé ki def boobu ñaawteef mu ngi wuyoo ci turu Thierno Thierno moomu nag dafa daal di jote ak ki nga xam ne moo di euh, Mamadou Ndiaye daal di lakk néegam euh, ki nga xam ne moo di victime bi jëlee ci ay gaañu gaañu ba daal di ñàkk bakkanam kon nag ñu dugg ci biir rek daal di déglu témoin bi. tur tur bi naka la. laa tudd. waaw bi man sama gis-gis lu ma fekkee ko quoi. Mhm. parce que man yàgguma si kër gi benn un mois laa fi def décembre laa fi tuxu si bu mu tuxusee fii laa leen fekk ñoom ñëpp si kër gi mhm. mais paa bi comme mag la te diabétique la dañ dagg tànk bi mhm. benn tànk bi dañ ko dagg quoi xam nga kooku mën na ma maam léegi problème bi. lu ma si jot a fekkee yàgg nañu am ay coow quoi paa bi naan ko génneel sama kër affaire yooyu sa jeex na lu nga tëdd jeex na affaire yooyu mais comme du mu si dugg comme paa bi moom kër moo luye këram léegi man foofu moom dama si neutre quoi heure bu ñuy jotee daal man damay ñëw ana la waaw ay kërëb wax ni arrêté ñu arrêté coow bi ma booy bi na ko négocier ak bi rek ngeen xam noo leen def xam léegi dañu toog ba yàlla def samedi. samedi bii passé man chaque fajar damay jóg damay teel a jóg ay ay premier nodd rek avant premier nodd damay jóg mm-hmm. léegi ba ma jógee mais lu ma njëkk sentir fekk jour boobu koñ bi dafa amoon xew quoi mm-hmm. mais xew bi du woon fii mais waa kër gi ñoo doon xew mm-hmm. léegi ñoom ba ñuy ñëw di tëdd si si fajar bi boobu nag maa ngi dégg seen coow xaj bi di wow quoi si la maa ngi sama biir néeg sama néeg moo nekk nii ko moo féetee fenêtre bi léegi après pas bi man avant loolu sax dama sentir essence quoi parce que essence day xeeñ quoi day naaw mais essence bu bëri mu ngi doon xeeñ sama biir néeg mais boobu dara xewul quoi parce que dégguma tam tànk dégguma bruit dégguma dara mais boobu maa ngi sama biir néeg après si laa jóg essence bi xaw ma buuree tuuti ma jóg ba ma jógee même pas dix minutes quinze minutes ma dégg paa bi di fëgg quoi mais fëggul sama néeg parce que indi handicapé la mhm. léegi néeg bu mu njëkk jot la fëgg léegi ba mu fëggee waaw ba mu fëggee ma jóg ubbi sama bunt parce que fëgg yi ñoo metti moom fëggee ubbi sama bunt si laa gis paa bi di tàkk ma daw man ak beneen locataire bi nekkoon fii mm-hmm. bu bu ma jàkkaar bu ma dondool nekk ñu daw xam nga ubbi salle bi mais salle bi yëpp mu ngi doon commencé tàkk parce que paa bi si benn kanaape la si benn mergàddu la doon tëdd day bàyyi néegam néegam am na salle de bain affaire yooyu am na lal lépp mais day bàyyi néegam comme diabétique la moom dafa ma ne suy tëdd nii si bunt bi pour cas bu ko feebar bi crise bi dalee mu fëgg locataires yi ñu daw wàllu ko quoi léegi nag moom si buntu salle bi nag la tëdd léegi buntu salle bi ak euh, fu mu tëdd ak buntu kii bi ak salle bi sorewul quoi mais mais paa bi bu muy génn dafa génn ak tàkk man quoi ah, père xanaa lu xew yaa danga nga da ngay xaru xanaa wala lu xew da nga taal sa bopp wala mu ne mu dee fils du du loolu rek xam nga ko quoi man ne ko mais man essence moom ma doon xeeñ nii ak locataires yi nga taxaw ñaari locataires yi doon asse mais ñoom ñu ngi daw di xëpp ndox mais dégg nañu lu ma wax paabi bi léegi ba ma waxee ak paa bi loolu ñu jóg profité fay paa bi quoi boobu fay nañu paa bi ba paa bi toog ñu dugg ci salle bi fay saal bi. après man ak dëkkandoo bu ñu nekkoon mais moom mu waaju waaju ñu ne moo def affaire bi moom wóoruma nag quoi mais moom mu ngi woon si biir néegam mais génnul mais buri bu paa bi def si biir kër gi mënoon na ko yee sax mu génn xool lan la parce que paa bi fëgg na lu yàgg yaram bi yëpp mu ngi doon lakk parce que paa bi yaram bi fii kanam bi yëpp a lakk li yëpp ba pokotaan beek tout xam nga jabet warul lakk xam nga après léegi ñu jël ko. instant man may ëggale di fay kër gi quoi léegi keneen sama dëkkandoo bi ne ma bàyyil ma daw yóbbu paa bi hôpital parce que paa bi génn na mënatul woon kii ñu fob ko yóbbu ko hôpital maam Abdou Aziz ñu ne nañ ko yóbbu CTO léegi bu ñu ko yóbboo CTO après paa bi woo ay mbokkam xam nga ba mu woowee ay mbokkam nag après ba mu jógee CTO dafa ñëw rek ne ma dafa ñëw rek si kër gi ne goos bi borom néeg bi moo ma taal mais balaa boobu muy wax après ñu fay taal bi toog fii quoi ay 9 heures 10 heures 9 yooyu si la booy bi di yeewu ne waaw paa bi da doon tàkk affaire yooyu quoi. donc yéen euh, amuleen benn certitude que ni waa moo lakk paa bi. non man moom wóoruma mais mook paa bi moom amoon nañu problème quoi ay génnal sama kër affaire yooyu man daal gis naa paa bi di tàkk man yàlla rek moo tax may wax quoi lu ma gis gisuma waa ji di ubbi buntam gisuma waa ji di. di di di kii quoi mais waa ji ba paa bi di lakk moom moom génnul néegam. ok puisque yow euh, ñoom lan lañ faroon di faral di jotale lan lan moo leen di jotale ñoom ñaar. non paa bi da ko ne lu nga tëdd sama kër doy na da nga indi jigéen fekkee naa fi tamit benn jour mu të gelam di ko dóor di ko marche électrique mhm. waa ji quoi mhm. fekkee naa loolu samay bët jour boobu maa leen atte paa bi taxaw paa bi amul amul kattan mhm. jour boobu dama ko fekkee ay ver minuit yooyu noonu. xam nga loolu motul sax ay trois jours quoi booy bi nekk ak gelam après nekk ak moom jékki-jékki ma dégg gel bi yuuxu quoi si biir kër gi wuyaay yooyu affaire yooyu ba ma génnee dama fekk muy mu yor benn marche électrique ma ne ko waa gaan jigéen kenn du ko def lii affaire yooyu quoi naxante ak moom xam nga après ma gunge leen ma bañ mu laal gel bi ma gunge leen ba si télé bi après ñoom ñaan ñoo ànd dem waaw euh, ginnaaw diir bi ngeen xam ne yéen ko dëkk ci kër gi waa loo xam ne da koy tàggale ak xelam. non lenn rek laa xam quoi yàlla rek moo tax may wax quoi doon na tux moom. waaw mais leeru man ndax doon na tux quoi parce que tux man jaar naa si xam nga doon na tux quoi waaw. paa bi euh, ay mbokkam dëkkuñ ci kër gi. ay yëpp dëkkuñu si kër gi. ay doomam dëkkuñu si kër gi xam nga man après sax laa door a xam doomam si la ñëw na ma fekk man. mënuma tam seetaan paa bi quoi ak nu mu mel noonu baa bi bu mu jógee hôpital buy def passement buy def lépp après benn bàjjanam day ñëw ak nijaayam ak maamam xawma ma j'espère ñu ànd dem CTO man may foofu paa bi maa koy defar xam nga. donc bi lakk-lakk bi paa bi doon na dellu si kër yi parce que CTO ñoom téyewuñ ko. bañ ko paa bi dem nañ CTO trois rendez-vous. yoo xamee paa bi maa koy yóbbu quoi mais si biir yóbbu bi après si la paa bi laa gis mu gën a faible quoi moo wax doom bu góor bi ak ak ak bàjjanam yi ñu woo doomam bu góor bi xam parce que doomam bu góor bi daf ma expliqué na ma dafa yor benn traite société la yor quoi fu muy jóge di ñëw xaw ma puut xaw ma côté yooyu daal fu muy jóge di ñëw noonu dafay sori quoi léegi mu bàyyi ma lépp ak ak ak ay tàntam affaire yooyu quoi mais daf fi doon ñëw tout le temps. tout le temps su kiiwee ba benn era day ñëw xool si bu dee ordonnance mu jënd defar affaire yooyu te après si la ma fekk bunt bi amul woon amul woon sécurité quoi parce que paa bi neena gos gosse bi moo ko moo ko moo ko daj mais loolu man fekkuma fi loolu moom fekkuma fi quoi waaw. léegi euh, paa bi ginnaaw moom kese moo fi dëkkoon te am na famille est famille dañ fi doon seet si moom avant lii di am. lu mu fi dëkk yëpp. non dinaa gis ay nit yu ko seet si dinaa gis ay xale yu fiy ñëw di ko fobeereel kër gi mais nekkul woon kenn waaw nekkul woon kenn quoi koo xamee comme famille bu approché quoi xaw ma nag loolu lan moo fa am mais après laa si ginnaaw daal laa xam ne paa bi am na ay famille famille yoo xam ne yu baax sax yu gëm yàlla sax xam nga mais nag wax dëgg yàlla moom xamee lu mu ko woon. bi ngeen di dund yéen ñaar mosuloo wax li tax mu beru ñëw fii moom dong dëkk ak yi. non paa bi si waa koñ bi lu ñu expliqué parce que waa koñ bi ñoo ma gën a xam paa bi quoi waaw ñoom xam nañu paa bi paa bi ancien policier la xam nga mooy policier yu ñu rajo yi quoi loolu xam naa ko si moom quoi mais si biir loolu en même temps tamit ba mu bañ ko rajee police def na six mois yoo xam ne semé na ko après mu dem banque banque la retraité waaw léegi ba mu retraité banque après dégg naa moo jabaram daal ñoo fi nekkoon ñu daggee tànk bi la jabar ji gedd dem yoonam waaw ak ñaari dogal bi nga xam ne waaw loolu laa dégg quoi waaw dama ko dégg nag quoi. ok d'accord euh, denc nañ ko ko suba. Mhm. suba lañ ko suba daal lañ ma woo lañ koy denc parce que corps bi lañ jotagul woon quoi dañ ko waroon autopsie. waaw doomam woo na ma si suba ne ma mu ngi sëtewoo. waaw doomam woo na ma si. suba dama mu ngi sétéo mais su ma ñëwee police naa la woo mais dama tëdd léegi di xaw a jël pause parce que damay teel a yow mm-hmm. mu ñu woo ma dañ ma woon nii police laa doon dem léegi doomu paa bi ba mu ma joxee ma defar caabi bi xam nga ne ma nag fekk moom après ñëw na fi waa ji quoi maam Thierno la tudd quoi moom ñëw na fi xam nga woo na ma sax ma ne ko mais yow bu dee tam lu ngay def bu dee yow defoo dëggalal sax bopp nga taxaw waa kër gi ñëw taxaw nga wax man de loolu laa mun a wax parce que jarbaat nga si man quoi xam nga parce que man am na jarbaat si man quoi parce que maa ko mag xam nga ma ne ko nag am na lu nga xamee defoo ñëwal dëggal sa bopp mais bul daw mun a non dama am benn liggéeyu jàmbur téer la affaire yooyu kërëb kërëb mais ba ma defaree kër gi jour vendredi ñëw na fi mu dugg fanaan parce que boobu beneen locataire bi dafa yor caabi da doon dugg mu mu tombeek mu dugaale mais waxuma ko dara. d'accord actuellement nii nii police ñëw na fi mm-hmm. def ko saa mm-hmm. ànd ak paa bi sax paa bi moo lañu jëlee ak famille am quoi mm-hmm. ñëw dugg si biir dugg si néegu xale bu góor bi mais boobu xale bu góor bi neewu fi mais par la suite ba ma defaree bunt bi samedi bi samedi bii passé booy bi dafa ñëw fii ma ma jël kànnaar yi doublé ko ñaar. mu yor na bi caabi mu ubbi caabi daaji beneen kanaar bi daaj bunt buntu bi da ko yàqoon carrément yii yëpp dañoon fenêtre yi xam mooy fenêtre yu ndaw yi nga gis mu ko yàqee nag comme grand bi daf ma ne bul xuloo bul xeex dama la dénk lu am si kër gi woo ma téléphone nga wax ma ma woo ko ay deux heures du matin na ko de ah booy bi de ñëw na fi dajji bunt bi grand bi ne ah mu ne ko waaw mu ne ma léegi suba teel bi naa fi ñëw grand ba mu ñëwee suba teel bi ay vers huit ubbil ko bunt bi mu xool gis affaire yi mu dem jugal si néegu booy bi yee ko ne ko nag yaa dajji bunt bi booy bi na ko waaw fii laa dëkk war naa fi dugg tëdd dama war a dajj bunt bi parce que ma ñëw kenn joxuma caabi après grand na ko waa jógal ñu jóg ñoom ñaar ñu ànd dem police ba ñu àndee dem police côté dimanche la léegi waa police jox booy bi convocation booy bi xëy démb mais yéegul woon ne paa bi décédé na parce que paa bi si fajar bi la décédé léegi booy bi ba mu demee police avec arrestation bi xam naa après rumeur bi dawaale si yoon bi par la ko gars yi téye no jàpp nañ ko waaw muy police parcelle police parcelle waaw mhm. waaw di ñoo bokk grand place fële fu ñu waxtaanee case ba xam nañu daal ancien policier la bu retraité waaw loolu daal xam naa ni suñu xarit la ku baax la nag amul benn problème ñu ñoo nekkandoo woon fële mais xaw ma lu ko rey naa dañ ma téléphoné léegi rek nee nañ ma am na am na njaay dee na naa laajte ndax moom la walla du moom waaw. léegi hmm? suñu xarit la xam nga nit ki boo bokkee moom ngeen di toogandoo di foondoo toujours seen xarit la lépp lu fa xew. enfin il faut nga yëg ko loolu moo ñu moom fi indi tey ma seet ndax moom la wala du moom. waaw euh, waaw. ñu gis ne affaire bi métti na trop. métti na métti moom dong moo fi dëkkoon ak locataire yi non wala. wooy wooy dëgg dëgg naa moom moom kenn ak locataire puisque dëgg naa jabaram sax dañu tàggoo quoi loolu la loolu lañ ma wax jabaram dañu tàggoo jabaram aawa bi dañu tàggoo. Euh, ginnaaw euh, ay xarit ngeen daan na waxtaan ak yéen ci ay mbokkam. non non non non non daan nañu waxtaan rek waxtaan grand place lañ doon waxtaanee waxuñ leneen mm-hmm. voilà ku baax la nag ku baax la ku baax la. même fële fu ñu nekk UPRES fële toujours toujours toujours foofu la ñuy dajee di waxtaan wallaay